kàllaamu président yaakaar naa man euh, dama am habitude di wax ni duma si nekk di ko wax parce que lu ñuy laajte lu ñu gis la lu ñuy daj chaque jour di ko xool la. kon duñ si nekk di polémiquer di si expliquer parce que ñun xam nañ en âme en conscience que sénégalais yi xam nañ li fi président def li si topp rek mooy ñaan yàlla la le 24 février nit ñi teel a dem si urne yi voté ñëwaat seen kër toog 4 heures ñu ne vive Macky gagné na ñu demaat seeti leneen di wax opposition bi aussi. ne nañ bàyyi yi ñuy def parce que tey ab réew mënoo fee nekk di jël tey ay yàq dar ak ay sos di ko teg ci kaw njiitum réew nit ñi nañu delloo ci seen xel xam ne ka nga xamante ni jiite woo daayira jiite woo leneen bëgg ñëw di laaj réew mi yaakaar naa ni ay caaxaan nga nekk te dañuy faral di wax naan kuy bañ tubéy doo bëgg taraxlaayu mënoo ne nag da nekk ci système dund ci système màgg ci système ba système may la lim lay may ngay lal ay njuuj njaaj affaire yi xaw a cóol nga bëgg a wëlbatiku di jàpp état bi di yàq seen der pour bëgg sénégalais yi bañ leen a votel pour votel la pour mën laa teg si kaw ngay mën a dawal say njuuj njaaj loolu man de en tant que jeune duma ko nangu maa ngi woo massivement la jeunesse sénégalaise le 24 février ñu jël seeni carte dem si urne yi falaat le président de la république ma ànd seeg sama kilifa sama sëriñ muy la le docteur